waa sëñ bi xam naa ne digaate yi sonn ngeen ci. Le candidat sortant, vous avez fait des promesses extraordinaires. xawma en tout cas fan la milliards yi dugg mais man bi ma duggee ju gisuma ko. li ngeen ma jooytu bi ñu jógee Kolda ba bi ñuy egsi fii fii la ñuy soog a gis làmb tuuti làmb ñu fi jaar rek loolu la ñu wax seen stade municipal bi nga may loolu c'est le symbole de l'échec de la politique sportive du gouvernement sortant. Chômage, chômage ou jeuni, chômage ou naouni. Chômage ou C'est totalement inacceptable, c'est totalement intolérable moo politique de développement économique et de redressement de la situation du pays sera axée sur le développement des petites et moyennes entreprises à l'échelle régionale, départementale, pour que la commande publique soit décentralisée et puisse promouvoir l'éclosion d'un écosystème économique local. Mais toog capté affaire yi ba nuppi ci territoire yi Ben ben commande publique loolu du mën a économie bi day chômage de gën a yàgg wax nañu ba pare ci affaire infrastructure yi nan la nuit décentraliser BCI pour que l'ensemble des infrastructures sociales de base puissent être prises en charge te loolu Sédhiou kenn du ko ci fàtte incha allah.